live bu ñuy def ci page YouTube faj Walfadjri alors euh, comme ni ngeen ko waxee noonu nañ koy euh, defee ñu aussi di souhaiter un joyeux anniversaire à DJ yu anam sax euh, wala daf fi sori. non mu ngi mu ngi place am de. ah moom DJ yu moom annoncé anniversaire ba pare di dem di làqu di xaar ko <laughs> di ko di ko souhaité kon joyeux anniversaire di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal en tout cas euh, grand bu baax la ku yaru la ku euh, voilà ku yaatu la aussi te amul benn benn benn problème euh, le temps peut-être sax mi indi fii parce que je pense que dafa waroon célébrer anniversaire am fii de bu ma juumul parce que Boubacar Mbare da ko indil ay ay teraanga. Mm. Euh, est-ce que Ndir doomu wol DJ DJ yu ñu commencer par euh, nouvelle bu triste quand même mm. Ibrahima Anne euh, mooy la disparition la mort de kilifa gu mag di Amadou Mahtar Mbow professeur Sénégal perte quand même perte bu énorme effectivement tey moom vraiment on s'est réveillé dans la douleur mm-hmm. dans la consternation avec la perte de Amadou Mahtar Mbow mm-hmm. bi nga xam ne so son no est intimement lié à l'histoire du Sénégal. Oui, oui. pour ne pas dire à l'histoire du monde. Mhm. Euh, ndax li mu représenté ak euh, euh, contribution bi nga xam ne bu am mhm. solo. bi nga xam ne indi na ko à l'évolution autant du monde que du que que du, que du Sénégal bu ñu nee le monde nag mooy à travers l'UNESCO fi nga xam ne moom moo ko doon diriger ba ay les années quatre-vingt-six je crois. donc mhm. notre génération on se rappelle quatre-vingt-sept ans. on se rappelle la bataille épique qu'il y avait eu à ce moment entre lui et les euh, les grandes puissances les États-Unis demoon bay naan ba menacé ne dañuy retirer leur financement à l'UNESCO mhm. su fekkee ne il il à la direction bon tout le monde savait que le combat peut était peut-être perdu d'avance mais euh, mais euh, toujours est-il que xamoon nañ ne euh, l'histoire retiendra que ne il a eu am na ay combats yoo xam ne wala ay jéego yoo xam ne def na ko Euh, bokk na ci li nga xam ne mooy euh, la bataille pour euh, l'avènement de d'un nouvelle ordre mondial de l'information de la communication bi ñu doon loo xam ne aujourd'hui tey la gën a prégnant sax mais yàlla def donc entre temps il avait quitté mm-hmm. et quand il a quitté ñëwaat fii bon il ne serait pas contenté du d'une retraite dorée mm-hmm. et tout le monde sait en tant que ancien ministre ancien député ancien directeur général d'UNESCO entre autres Euh, fonction prestigieuse yoo xam ne euh, occupé woon na ko. donc il aurait pu prétendre à une retraite de luxe. Mm-hmm. mais euh, à chaque fois que de besoin. dafa doon répondre à l'appel. Mm-hmm. notamment à travers les assises nationales. yoo xam ne les avaient dirigé avec brio. Mm-hmm. te ba léegi nii amul pratiquement benn semaine wala benn mois boo xam ne dañu. dinañu rajo yi dinañu wax ba ba ba boucler semaine bi te duñu tudd assise nationale. effectivement donc et assise nationale yi Euh, l'alternance de l'alternance en 2012. Mm -hmm. je crois que après moom moo dirigé woon la commission nationale de réforme des institutions. moom la ko Macky Sall dénkoon. moom moom la ko Macky Sall dénkoon moom mhm. ñoom euh, Mamadou Lamine Loum. effectivement ak beaucoup de euh, dominantes personnalités yoo xam ne. donc ils ont marqué vraiment leur euh, leur, leur passage sur terre. Mhm. donc di ñaan yàlla rek yàlla na fi mu jëm yàlla na ko gënal fii fii ni mu jógee. amiin di ko di di di di di jaale njabootam. njabootam bi nga xam ne moom moom la jural boppam ak mm. njaboot yi nga xam ne bon c'est à travers les euh, comment dirais sa famille politique ak yooyu mm-hmm. ak euh, sa comment dirais son beau-fils Amadou Euh, ancien ministre de l'économie et des finances mhm. donc bi nga xam ne gorom la donc mhm. di leen jaale ñoom ñëpp di jaale mboolem Sénégal mhm. Sénégal mon père de Georges Nesta te nu ko euh, lu mu tudd Ibrahima an rappelé léegi euh, ba muy toll sax ci âge boo xamante ni bu avancé la terewul mu continuer di rendre service Sénégal bu mujj mooy ci ba muy jiite commission de réforme des institutions def ay propositions quand même yu pertinentes travaux yu yëpp mu diriger ko malgré moo amoon âge bu avancé waaw vraiment c' est euh, Amadou Mahtar Mbow je crois que Ibrahima mu ngi koy brosser léegi si était un homme euh, vraiment multidimensionnel. Oui. qui a vraiment traversé son temps et de façon vraiment positive. Mm-hmm. Ibrahima mu ngi koy wax léegi bu muy occupé bu muy nekk euh, à la tête de l'UNESCO dans les années 74 xam naa ñun ñi ay xale la ñu woon. Mm-hmm. kenn suñu na xam naa war woon nekk première sax. Mm-hmm. donc euh, tey def na fa un un travail remarquable en tant que premier africain bi nga xam ne moom moo njëkk a occupé poste si institution bu toll noonu. Mhm. parce que l'UNESCO ce n'est pas je crois que moo fa njëkk nekk en noir daal origine africaine occupé poste direction bi mel noonu. donc c'est pour dire que c'était pas n'importe qui. Mhm. surtout à l'époque donc euh, ibrahim mu ngi koy wax léegi aussi euh, bu mu jëlee sa retraite. am na des des contemporains ay moroom ñoo xam ne ñu woon fii Sénégal mais sont contentés d'être euh, je ne sais pas dans leur petit coin di jàpp di julli di dem à la mosquée mm-hmm. mais lui s'est intéressé à la à, à la démocratie sénégalaise mm-hmm. parce que bëgg démocratie sénégalaise dox moom loolu moo moo taxoon mu nangu peut-être ce poste là mm-hmm. parce que à l'époque je crois que dans les années bu ñu initier les assises nationales

doon jéem pour euh, renforcer la démocratie sénégalaise à travers ces assises-là à travers également cette commission de réforme des institutions vraiment c'est un intellectuel accompli pas seulement li mu li mu contribution mu def au niveau de euh, pour la démocratie sénégalaise mais quand je dis intellectuel accompli mais euh, imagine euh, je crois que Amadou Maktar Mbow Euh, il a franchi en tout cas toutes les étapes qu'un enseignant peut, peut, peut, et doit faire ba yegg si euh, au de professeur mm-hmm. jege ko jële ko à la base laa la wax de mm-hmm. instructeur ba si kaw ça quand même ça c'est c'est c'est un grand mérite mm-hmm. bëriwul ñu ko doon def peut-être tu me diras que par là Abdoulaye Wade est passé par là mais c'est des yoo xam ne on les compte du bout des doigts en tout cas du, truc euh, au Sénégal donc euh, ñu ñaan rek yàlla xaare ko àjjana et puis que le Sénégal aussi puisse continuer à bénéficier de ses de son expérience de de de de de, de sa riche carrière que ce soit carrière politique de son en tout cas de son vécu <laughs> souvent Mame Birame dañuy naan Sénégal vie misérable mort glorieuse mais euh, moom euh, Amadou Makhtar Mbow jot nañ ko quand même rendre hommage tuddee ko ay université que yu bëri yoo xamante ni wax dëgg yàlla c'était en fait pour lui rendre hommage de son waaw te bu ñu ko mënti rendre du doy. Mhm. par rapport ak euh, li nga xamante ne nii def na ko man je considère que tey bu mu euh, noppaloo. Mhm. c'est juste euh, mission boo xamante ne nii dafa jeex. Mhm. parce que quand même cent trois ans c'est pas donné. surtout que ñuy wax naan Afrique fii surtout sunu dëkk yi espérance de vie bi ça tourne autour de soixante cinq ans. mu dem ba cent trois ans <laughs> euh, euh, loolu lu ko xéewal gu ko yàlla defal la te jàpp naa ne xëy na taxawaayam ci àdduna bokk na xëy na ci li tax mu euh, am loolu donc déjà pour Sénégal am indépendance rek bokk na ci ñi nga xamante ni taxaw nañu xeex te xeex boo xamante ne ni nag bokkul ak xeex bi nga xamante ne ni dañu ñëw dëggool ne bëgg ngeen indépendance ñu ne ko non dañoo bëgg a rester ci communauté beeg yooyu yooyu di eh, di di di di di layam-layam yi moom ci position ñoom Sékou yi la nekkoon nga xamante ne nii on voulait l'indépendance tout de suite et maintenant oui. il n'est plus question di continuer di nekk sous la domination euh, de des des des Français mm-hmm. au-delà de ça également bañkat boobu nga xamante ne nii doon na ko tax na ba mu demee UNESCO également mu taxaw fa taxawaay boo xamante ne nii ñu bëri rafetlu nañu ko. Mhm. loolu incité sax euh, Ibrahima Anne mu ngi koy wax sànq mu am fi bras de fer bu doy boo xamante ni moom ak américain yeeg les anglais la par rapport ak euh, information bi niñ koy euh, joxee ci àdduna bi ba ñaari pays yooyu buñ demee ba ne États-Unis démissionné na UNESCO. ñu ne Royaume-Uni démissionné na UNESCO tout simplement parce que jéem nañ koo def loo loo xamante ni nanguwu ko. Mhm. pays yooyu. xam ne ñoom mënuñu koo pousser à la démission ñoom ñi préféré quitter tout simplement loolu day wone ne quelque part bañkat la woon en tout cas au delà de njaal yi nga xamante ni nañ ko teg ci loxo ay mbokkam famille am proche am et tout ça. Euh, li ñu mën a euh, euh, xëy na recommander rek mooy que quand même ñu gën a vulgariser. li nga xamante mhm. ni mooy jaar jaaram. gën a koo joxe porté en exemple à nos jeunes surtout ci jamono yi nga xamante ne ni nit ñi dañuy wax ne amuñu repère donc boo amee ku mel ni Amadou Makhtar Mbow am jaar jaar bu toll ni jaar jaar bu mu bu mu def. nga xamante ni maa ngi eh, eh, liir kii ñu ne Jeune Afrique mu ngi naan eh, daanaka bokk na ci ñi gën a guddule CV boo doon jël CV Amadou Mahtar Mbow da mm-hmm. koy tàllal fii ba buntu Walfadjri mm, près de quarante universités ku ci nekk jox ko docteur honoris causa donc loolu du ay caaxaan mm-hmm. jàpp naa ne soo amee nit ku toll noonu à cette dimension war nga quand fexe ba ndaw ñi di ci jot di ko jël comme exemple mm-hmm. d'autant que bañkat la woon nekkuloon koo xamante ni matériel moo ko intéressé woon sinon an mu ngi koy wax sànq assises mhm. nationales yi doonu ko def da doon jël Abdoulaye Wade tout simplement mu nommé ko PCA quelque part mhm. mu toog jàpp njàmburam mais wane na ne Sénégal nu muy doxee daf ko intéressé mu engagé wu ci donc jàpp naa ne ku ñu war a euh, euh, vulgariser ay la ku ñu war a vulgariser parcours am la porté ko en exemple tout simplement mhm. euh, maam bi wax lu am solo Ibrahima Anne mooy âge tey jii jafe na quand nga dund âge yu ni mel wala yu toll noonu te nit ñi souvent duñ la jéppi wala sax nga am ay mbir yoo xamante ni nit ñi duñ ci ànd mais moom euh, kenn gisu ko euh, foo xamante ni dañ koy xeeb wala sax euh, mu def loo xamante ni dafa mel ni lu xaw a doyadi tey est-ce que au-delà de infrastructure yu ñu ko tuddee jotul quand même comme ni ko membre am waxee léegi rek ñu jéem ko jàngal ndaw yi parce que dañuy naan souvent xale yi dañoo manque de repères. effectivement mais je pense même que pour la symbolique pour la symbolique euh, euh, un hommage devrait devrait lui être rendu. xaw ma nag bon peut-être les autorités sont mieux placées que moi pour xam ban ban type d'hommage lañ koy rendre. mais un hommage doit doit lui être président moom réagir na ci président réagir na bon ñoom ñëpp def nañ ay réaction yu positive ci mhm. ci moom on ne pouvait pas attendre moins de euh, pour pour pour Amadou Mokhtar Mbow l'autre chose mooy que euh, sax j'ai de le dire mooy euh, man il ne donnait pas cet mhm. man quand on a dit que dañu célébrer le centenaire de Amadou Amadou Makar Mbow je mhm. boobu ça m'avait un peu surpris parce que man je croyais que il il avait bien moins peut-être ay quatre-vingts ay quatre ans ay soixante mais quand on te xam nga Sénégal fii centenaire déjà c'est lu jafe la. Mhm. et à cent ans être actif. comme comme il l'était oui. donc c'était pas ça euh, dafa nekkoon loo xam ne dafa ma xawoon yéem. Euh, et comme tu l'as dit au-delà de l'infrastructure bi nga xam mhm. ne moom lañ moom lañ jox turam donc je pense que la génération gagne la génération actuelle gagnerait à ce que ñu xamal leen euh, kan mooy Amadou Mokhtar boobu ak tout ce qu'il a réalisé parce que ñun peut-être la chance qu'on a c'est que am na am na ay yenn page de son vécu yoo xam ne fekkee nañ ko mhm. bon par exemple la bataille qu'il a menée avec euh, la fin de sa carrière ay vers 87 avec euh, certaines grandes puissances au niveau de l'UNESCO mm Euh, ak li nga xam ne mooy direction bi mu dirigé woon les assises nationales. Mhm. ak euh, li mu dirigé woon commission nationale de réforme des institutions. oui euh, mais par exemple les gens qui sont nés en 2000 wala en 2010 par exemple. loolu ils peuvent ne pas ne pas savoir que Amadou Mahtar Mbow. fii aussi ministre de la culture je crois. Mhm. qu'il fut culture. que sànq maa ngi doon gis ma maam Birame parle de l'éducation de l'éducation de la culture. Mhm. maam Birame parle sànq de son CV. ba culture am di am solo. ma ni ko ba culture di am solo ba culture di am solo parce que déjà bi nga. fa euh, ñuy solo fi <laughs> culture dañ ko joxoon solo sax. mooy link bi ñu defoon entre culture ak éducation effectivement. parce que des fois ni ñuy ni ñuy teggee ministères yi rek foofu ngay xamee solo bi nga xam ne. jox nañ ko euh, jox kii. Euh, mhm. en France par exemple da nga gis benn moment je crois peut-être c'est c'est le cas jusqu'à présent sant export dañ koy boole. Mhm. parce que qui dit qui qui qui dit santé parle de sport. de sport oui. un esprit sain dans un corps sain. aussi je crois que du dañ doon boole culture ak éducation donc mu wane woon euh, solo bi nga xam ne moom lañ joxoon culture au lieu que de dire que culture et loisir. Mm-hmm. ministère la culture et de loisir mooy genre voilà. jeunesse et loisir voilà voilà jeunesse et loisir <laughs> euh, mais quand on culture et éducation day wane vraiment gëdd bi nga xam ne moom lañ jox. Euh, moom la jox euh, à la culture <laughs> donc euh, tout ça gagnerait vraiment à être connu à travers des je sais pas Euh, une réforme des programmes des des curricula scolaires ak yooyu. Mhm. pour que la jeune génération s'approprie Amadou Makhtar Mbow xam nga xam ki nga xam ne moom mooy Amadou Makhtar Mbow. ak ak euh, œuvre bi nga xam ne bu colossal boo xam ne euh, def na ko. wu rafet aussi boo xam ne. def na ko. Mhm. et comme tu l'as dit effectivement. daawuñu ko woon tudd ci ci ñàkk fayda. oui oui daawuñu tudd ci affaire yoo xam ne da koy yu xeebu. Mhm. c'est quelqu'un koo xam ne à un donné bon mënoon il aurait pu être. se mettre du côté de, de, de, de du côté de de ceux qui partagent les privilèges et les pouvoirs surtout en en nga xam ne Wade oppo Wade 2010 opposition bi mu amoon mhm. vis-à-vis des assises nationales mhm. tout le monde se rappelle de ça mais il a eu le courage de les diriger ba mu am tout ce qui est sorti de là-bas la charte des assises nationales ak yooyu ba nga xam ne ba jusqu'à présent ça mhm. continue à inspirer encore les politiques publiques que ça soit dit ou que ça soit pas a ah, inspiré hmm. ñi nga ñoom ñoo euh, yor euh, la ngay réew mi d' accord mi homme politique euh, Mame Birame Wathie balaa may dem ci Georges Nesta tey